may major fii ci centre de santé bu Cambérène waaw merci Aziz comme euh, niñ koy defee at bu nekk rek depuis un bon bout de temps weeru octobre bu ñëwee dañuy choisir benn jour ci biir weer bi tuddee ko sunu octobre jagleel ko ay activités yoo xamante ne ñu ko jëmale ci jigéen ñi ñu mag yeeg yu ndaw yi muy cancer du col de l'utérus dépistage am dépistage cancer du sein ak euh, vaccination HPV. waaw jërëjëf Aziz HPV boobu euh, vaccination la boo xamante ni mi ngi concerné cancer du col de l'utérus mooy aar xale yi jigéen ñi diggante 9 ans ba 14 ans lan leen koy defal ñoo ngi koy defee ñaari dose dose yi ñu ngi am intervalle 6 mois moom la ñuy defal xale yu jigéen yi moo leen di aar bu ëllëgee ci cancer du col de l'utérus boobu ñu tàmbalee waxtaan. waa di leen ñaax rek euh, xamal leen ni bis bi yemul ci benn bis. bis bi bis bu ne la chaque jour bu ñu ñëwee ci biir centre de santé bi vaccin boobu disponible na fi dinañ ko defal xale yi jigéen ñi yamul ci xale yi ndaw rek. day dem aussi ba ci mag ñi mag bi nga xamante ni def na fóot yi leer la ko ni amul benn feebar bu ñëwee dañ koy vacciner tamit ci vaccin boobu nga xamante ni dina ko aar contre le cancer du col de l'utérus ñoo ngi leen di ñaax di leen sonj di leen xamal ni leen ñoom ñooñu fi tax a toog lépp li nga xamante ni war nañ ko mën a def pour sunu askan nekk ci jàmm dañ koy daal di def te loolu ci la bokk ndax dañu ni euh, euh, fagaru balaa ngaa faju kon vacciné balaa feebar di la dab Covid 19 dafa song suñu réew song yeneen réew boobu ba tey tëw ba donc occasion bu nga xamante ni mën nañ ko am rek pour war a vacciner sunu askan yi dañ koy daal di def dañ koy teg nii jàkkaarlook moom ndax mën na am ci biir mbooloo mi kenn koo xamante ni soxna la soxna na ko boobu bi léegi te mënu ko woon jot su fekkee c'est l'occasion ñu daal di ko koy defal ça ne di leen jaajëfal ñoom ñëpp effectivement yombul waaye yàlla daf ma defal benn faveur dama am benn personnel boo xamante ni dañu dynamique gëm li ñuy def te bëgg ko loo leen woo lu ne lu ñu jàppoon lu ne dinañ ko baax ñëw wuy si la surtout nag li nga xamante ni dafa jëm ci wàllum santé bi nga xamante ni moom la ñuy yëngatu maa ngi leen di jërëjëfal ñoom ñëpp commencé ko ci sama médecin chef docteur Cheikh Sadibou fàtte moo waa maternité ñoom maîtresse sage femme bi Yacine Mbaye ak euh, personnel am fàttewu ma ñuy bale fàttewu ma ñi bunt bi parce que ñoom ñëpp seen loxo mi ngi ci biir bés bi rien que pour taaral ko rafetal ko jàpp si pour mu jëm kanam bon je me suis dit nii toute femme est héroïne de sa vie. On fait de sa vie ce qu'on veut en faire. Nous, on a choisi d'être des héroïnes. Héroïne nag du bàyyi dara mu sedd du bàyyi dara mu jàll ginnaaw kon li ñu war a aar duñ ko bàyyi mu jàll ginnaaw moo tax nu sommes des héroïnes de nos vies. jërëjëfal ñëpp si seen teewaay surtout yéen ñii fàttewuñu kenn di leen wax ni la ñoo ngi nii centre de santé baa ngi fi spécialité yaa ngi fi euh, am na nañu labo cabinet dentaire lépp lu nga xamante ni day jëm si sunu askan daal bu ñu dugg see dinañ ko fekk ci biir yéen rek la ñuy xaar yéen a ngi fi tax a toog jërëjëf. macha allah.